te nuyu Modou. bismillahi baaril anaam tey ma way gi ak yàlla bind jaam mooy seydina xalqi mooy imaam te mooy sunu maam rasulilaay bismillahi baaril anaam tey ma way gi ak yàlla bind jaam mooy seydina xalqi mooy imaam te mooy sunu maam rasulilaay sallallahu alayhi wa garab ga waxloon na xar na weer wa ñaar ñaar ñaar ñaar waa maka bañ ni déedéet mm-hmm. badaa mintal adil yàlla Mamadu walayla du jaa min wafrati sayyidina Muhammad faaxa rasula mm-hmm. fadlan wa ula mm-hmm. ahda subula li dalalati Muhammadu rasulillah kaay leen xool kaay leen xool ay ngéer yonen yaane xawe seydi xalqe sang bee feeñ kaay leelu xool ko yot nen boo demee jàkkaarlook moom di nga xam ne benn VIP doo nga am tamay rasulullah say de xal xenge sang bee kaay leen xool yot foofu mu tudd fa lay dekkee ramu jàmm Muhammadu Rasulillahi shafi'ana fil mahshari moo ni ramm ci bisu pang ma waali wasabi wala sari billahi wal badu inni la yasun billahi yonnen ngir la yonnen yaane xaway ndeysaan xam nga man maa yore fans club am wallaay wallaay ndax ndax ndax cofeel gu ma am ci moom Modou Mboup Sénégal yëpp bëgg ko waaw euh, jëlale naa sax euh, waa kër Cheikh de Thialaw Seck gaynde nguraan waaye moom euh, waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu yëpp wax xayaatu dañu ko fonk euh, ci taxawaayam kontaan nañu ci teewaay bi ñu jëm nag le 4 avril théâtre national Daniel Sorano. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa boo gisee ñu ñëw rek tàgg yonent bi. autoraay bu jubee gaar day corne. te ñun sunu corne mooy tagg Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaye ñu ngi nuyu kilifa yi fi nekk ci àddina bi yëpp. bu ñu nuyoo jël nuyoo bi teg ko ci loxo Cheikh Aya. doomu Cheikh Talib Bouya. doomu cheikh na cheikh Saad bu di xalif général des xadr mhm. ñu teg ko ci loxoom mu wàcc ba nguraan mhm. nuyu sunu bàyyi naa Mamadou Seck mhm. doomu cheikh Mamadou cheikh doomu cheikh day calaw di xalifa cheikh day calaw mm-hmm. waaye jaar ci sunu porte parole kër mm-hmm. di sunu lépp di sunu bàyyi di sunu wasila di sunu yaakaar teeg ëllëg mm-hmm. di alaaji cheikh Makhtar Seck bu nguraan mu jottali nu ko mbooleem xalif généraux yi nekk ci réew mi ak mbooleem ko nuy seetaan lu tax le le 4 avril nga woote Sorano waaw Pape le 4 day bis bu symbolique ndax dafa tombeek feetu indépendance Euh, te sunu wasila cheikh na cheikh Saad bu xeertu dafa judd rek paap ñu abolir esclavage <laughs> mu tombeek loolu yu jël la kaat boobu nag nga xam ne bu nu amee jàmm mhm. fii nu nekk ci àddina ak fële ci alaaxira yonent bee tax moom moo ñu tax a libre moom Seyduna Muhammad moo libéré kuy góor libéré kuy jigéen moom Seyduna Muhammad di maamu Cheikh na Cheikh Saad Bu di yaakaaru Cheikh day calaw gaynde mhm. nguraat mhm. moo tax ñu taamu la kaat boobu toujours feetu indépendance dem ñun fële libéré sunu bopp ca Sorano xam nga dafa dafa am lu ñuy wax euh, souvent ci euh, programme yooyu la ñun yenn saa jël ay matuwaay pour mën a fekkee mm-hmm. waaye defe naa tey yoon la comme heureusement ba des na ay fan mm-hmm. euh, naka la euh, euh, sénégalais yi mën a def pour fekkee ko diggante numéro téléphone réservation mm-hmm. billet yeeg naka lay demee loolu itam dafa am solo pour nga ko pour nga baaxee ko sunu xarit yi seetaan waaw Pape jërëjëf mm. réservation bi ñun du mosuñu def entrée payant ndax yàlla dafa dogal ah, fa tabarakallah ba ñu dalee def ba léegi amul ñu ndigal sax ci def ci entrepreneur hmm. waaye dañoo xam ne li ñuy liggéeyal Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaadu na ñu jël benn bis rek woo jaam ñëpp hmm. bégal leen ci hmm. sunu suñu moyen bopp macha allah waaw bégal leen ci sunu moyen bopp dafa am ñoo xam ne ay soppe waaye it métti na de trop organisé dafa métti dafa métti ci jamono ji da ngay fay saal waaw da ngay fay saal sono togg ay lekk métti na de métti na lool lool sax waaye nag ah fa tabaarakalaaw nit bu tegoo ci ndigal rek. Ah. ndigal laa koy dimbali. Ah. waaw waaye ñu baax nag dinañ ko dimbali. mooy loolu ñoom ma tëggaloon moo ma tëggaloon vingt mille euros vingt mille dollars. moo reer ba New York ci barke eh, Cheikh Béthio moom laa koy naxe que dama wàccee New York dama ko woo. ne ko barki eh, barki Cheikh Béthio nam naa la. mu daanu te gën ci guddi gi. kamaandal nga ma dara sax borsa yaa su li andar baayu xadeeg naa. wallaahi laay laay la fa ñu mel noonu. Mhm. ñooy jàpp ci guddi gi. wallaahi. Ah, fa tabaarakallaahu parce que ñun mooy li ma doon wax rek. boo tegoo ci ndigal ndigal li moo lay dimbali. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla sunu sëriñ boobu ba léegi bu mu ne ma demal. Mhm. defal li ma la wax dina mhm. baax. Mhm. bañ ko dalee def ba léegi ku ñëw Sorano. rétu woo ko de boobu ba tey non seulement. guichet dañ koy tëj. waaw ndax naan dootuñu jël kenn ndax dootuñu am risque. day fees ba ëpp waaw fees te wax dëgg yàlla yàlla duñu ci dimbali. duñu ci génnee duñu ci am benn problème. fa tabaarakallaaw nit ñi kontaan. ndax soppe am nañu bëgg Cheikh Modou Mboub lool. waaye amuñu moyen bu ñu ñëwee. dañuy def ay car di jóge ay Nguraan hmm. di ñëw te amuñu moyen yu nu duggee Sorano hmm. yooyu yëpp ñu def ko hmm. entrée euh, gratuite ku ñëw rek toog sañsa daal mooy mooy mooy affaire bi barkeelu rek lay doon ci barkeb euh, ci barkeb Gaynde Nguraan te it maam Cheikh de ci boppam da daan wax léppam ci yàlla mi ngi ko wékk keroog yombal xiyaam adduka bi sib tey nii rabbi wasino rëy ni sa adda tuddaa rëy ni nasiyama fit xiyaam loolu nag moom ci la ñu wekk ñun. Mhm. parce que nit lu muy woote da koy nuru. Mhm. ci la ñu wekk boo tax du ñu def bu ñu koy def grand théâtre sax. Mhm. du ñu ko def incha allahu. entrée payant. mukk ci mais jàppandal gi euh, ah. baax na ci. Euh, mën nga ñu jox euh, numéro bi nga xamee ni staff bi ngay liggéeyal. waaw bu ku baax wootee. mën na cee mën na cee jot. wallaay numéro bi mooy 425 73. wala 400. 40. 54 40. mooy numéro bi. wala 650 60 74. yooyu numéro daal ku ci woote. Mhm. di nga jot staffu Cheikh Modou Mbow sopp na bi. Mhm. ambassadeur maam Cheikh Déthié la. Mhm. at moo tëggee guddi rek euh, dina uuteeg at ma at mi weesu ren lan moo nar nekk particularité. waaw euh, bu guddi gi. incha allah ren originalité guddi gi. mooy surtout hommage yeeg sargal yi. ndax Pape bari na ñoo xamante si daan na ñëw ci guddi gi. yàlla def ren fekke ko. ku ci mel ne sunu xale xalifa bu tedd bi mhm. ñu koy ziar muy mhm. maam naa xalifa mhm. ñu ko ci rendre hommage mu def 40 ans de xilaafa ci Cheikh Pape Hann zéro faute zéro faute. àddina yëpp seedeel ko ko. ren ñu ko ci rendre hommage. waaye ak suñu baay bu baax bi nga xam ne dañ ko ci fàttaliku at bu jot. muy Cheikh Ousmane Diagne. nga xam ne def na lu ne. lu ne lu ne ci tarixa bi. wallaay baayu Dior Diagne bëgg bëgg Cheikh na bëggoon Cheikh na Cheikh Sall moo àndoon ak Baye Mbagnick Seck. wallaay wallaay ànd ak sama ñoom papa si El Hadj Cheikh nga mag ñooñu. Mhm. wax dëgg yàlla man dama ñëw rek. Mhm. Mhm. jël fi mag ñi jaar ma jël yoon boobu parce que waruñu ko bàyyi. yaa yëy ko bàyyi rek. yaa yëy bële waaye mhm. tamit touche mag ñi aussi. Mhm. am na lu bari loo xam ne ñu ngi ko ci yee. Mhm. du bis boobu sax. dañ ci invité euh, figure bu mag ci tabala. ñu koy wax Cheikh Baye Fall. Cheikh Baye Fall. xam naa ne di ko dégg wala nga xam. waaw gis naa ko sax mos naa ko muy tëgg muy tëgg moom ko ci invité. ci yëkkati benn galañ boo xam ne bu soobee mm. yàlla waaw. wallaahi wallaahi <laughs> kon nag guddi gi mm-hmm. fa tabaraka allah bari na ay particularité mhm. waaye nag ma mhm. ci euh, euh, décoré nit ku màgg mhm. di sama baay. Mhm. di sama xarit. Mhm. di sama soppe. Mhm. du def dara te woowu ma. wutalewu ma ak doomam yu jur. muy sama papa El Hadj Mansour Mbaye. macha allah man rek maa koy déranger heure yooyu. mu bàyyi yitteem yëpp. ñëw toog ak man soraanoo. ba man maa yónni staff bi kenn ne leen ne leen papa yëgal. moom moom la la ah, Baye Baye Mansour Mbaye. waaw premier mai ñu ànd ak moom ca Tiwaawan. waaw ca ndax papa ku nangoo sonn la ci guddi. ndax xam nga ni kuy jël téléphone ak baayam ba nag la. wallaay wallaay mën Mbaye Maodo kooku diine ji rek ko koy ñor wallaay ndeysaan day jël mhm. maa ngi yebal sama doom mhm. def leen nangam mhm. def leen nangam di jàpp ci guddi gi ba pare nag pap def lu jafe ñëwal boppam déplacé wu ñëw toog waaw waaw guddi googu daal euh, guddi Cheikh Day Calaw la te Cheikh Day Calaw mën na boppam wallaay ni mën na boppam en tout cas euh, ñu ngi ci ndokkeel njabootam yëpp ndax dañ ci am ay soppe am ci ay xarit euh, Momar Ndiaye caméraman la nekk RTS Euh, ak jabaram euh, réalisatrice la Rokhaya nekk réalisatrice 2STV. Euh, Rokhaya Rokhaya moom borom këram waa kër Gaynde Nguraan la. ak ay ay ay mbokkam yëpp. ku mel ni sunu sang yi nga xamante ni ñoo bokk ci njabootu Ajot Fat Cheikh bokk na ci suñu yaay Yacine Diop. Yacine Diop moom tamit fonk lool njabootu Cheikh de Lô ndax fa la bokk. Mm-hmm. voilà donc ñoom ñëpp daal ñu ngi leen ci ndokkeel bu mm-hmm. baax mm-hmm. ku mel ni Chérif Fall wali Maane Ndiaye moom tamit ku tudd ku tudd Cheikh na Cheikh Saad bu xalaat ko moom la woykat bi ne woon alwali Maane Ndiaye yow la ñuy béggee kon kon kon kon kon kon moom le 30 avril la jëm ba pare Pape Chérif Alwali maamam Cheikh Al Maxfum mi jur baayam Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel. Mm, mm, mm. la Cheikh na Cheikh Saad bu jëloon loxoom teg ko ci loxo Cheikh Ndeye Thiaroye. macha allah ñoom Aliou Chérif Alwali. ak Chérif Ba boo li ubbee carte yi. moom ngay gis Chérif Ba sur la président ndax moom. Euh, Cheikh Mahfou mhm. moom la ñu dénkoon Cheikh Dethialaw mhm. ñoom amuñu dara lu ñu hérité ci seen Cheikh Saad Bou mhm. ku dul maam Cheikh Dethialaw macha allah macha allah en tout cas ñun kontaan nañu lool euh, Oustaz euh, ñu gërëm ko félicité ko ku baax la te xam ni ñun ñëpp dinañ dem incha allah daaw invité woon na ma ñu jàkkaarloo Sorano mais nag waxagoo ma dara ah Pape dangaa newul Pape woon na la ba son yowit tournée yi rek <laughs> moom Pape mais mais jàkkaarloo bi dina amaat Pape bëgg naa la lool te yow laay faral waaye ma ni Modou woo na la ba sonn comme yow da ngay beral loxo waa Amérique waa France ah, waa Italie waa Brésil amul benn problème xanaa ñu xaar le 6 juillet rek bu ko defee li ñu waroon li ñu waroon barkeelu ci ci ci ci weer yi yëpp ñu denc ko rek ba le 6 incha allah ñu denc ko ba le 6 rek 6 juillet waaw dellu njukkal yërëmtu bi sallallahu alayhi wa sallam Pape di di la après moo wax la. di di ci occasion bi. di gërëm waa diaspora bi. Uh-huh. ndax euh, Pape euh, Cheikh Oustaz mi xam na li may wax. Uh-huh. diaspora bi am na fuñ ñu teg. bëgg nañ ñu lool. ah bari nga jëlee. waaw at eh, eh, at bu jot. <laughs> <laughs> ñu dep ñu war ñu. Ah. weer yi des fois ñu déplacé ñaari yoon. ci weer yi sax uh-huh. ñu dem toog ak ñoom taggal leen yonent bi. bi passé man ak Oustaz mi. Saad bu Samb. Mhm. Abdou Lahad Guèye. Mhm. wax dëgg yàlla def nañu Italie ak diggante Italie ak France Suisse. loo xamante ne si soppay yonent bi yëpp kontaan nañ Pape am faxaas bëri. Mhm. waaye di gërëm bu baax nag euh, Baye Cheikh Seck. ak soxnaam di frère ci sa xarit. maam Faat maam Faat ku mën a jàppale ci bis ku baax nit baax bi may ñëw la ne ma nuyul ma Pape Cheikh. wax na dëgg sama soppe la sama xarit la. man daa saa yu ma banqué rek woo ko ne ko sa maama suli néewi ndar géej dekkal bay la Ndiaye ca Ngumba fàttaliwaat ma tur dëgg bi kenn du moom falaa falaa koy jaarale. sama euh, problème sama mag ju baax. dama ne aw ma problème. sama mag ju baax Pape te la ma tëggalee reer ba New York. sama mag ju baax Pape. sama mag ju baax pa mën a jàpp ci guddi gi nga xam ne sonorisation uh-huh, moo ci jàpp moom ma ko njëkk a jëndal uh-huh. ne ma bul demati fenn du lieu sono parce que guddi guddi fere la de ak sono ni mu chéré wallaay fere ñu koy wax maar Diop di sama uh-huh. ñu bokk man moom ndey ak baay mu borom fra euh, lavandaria Faramareen nga xamante ni si moom ma njëkk a jël jox ma xaalis bu bari ne ma jëndal sono bu luyeeti fenn nit ku baax la nit ku baax la ak Moussa Fati yàlla na ko yonent nga xam ne tukki nii man damay jékki-jékki rek ñu ne sa billet baa ngi billet baa ngi nii moo ñu jàpp ci tukki bi ñuy fàtte nag bu soso pay mooy def <laughs> waaw ak Cheikh Mbaye Mansour doomu doomu Mansour Mbaye wallaay Cheikh Farba waaw Cheikh mi bëgg Farba Ngom très bien borom bëgg président de la République borom bu baax dëgg dëgg moom bu ma fi nekkee di lim soxna loo ta Mbàkke sama xarit waa jàngoogu ah, lépp ko bu baax alfi noppil ma yow lañ ko présenté woon yaa ma ci bëgg ëppale <laughs> ndeysaan ma dem Italie lekk ko tagg fa yonent mu mu gis ma rek soppal ma boppam ku baax la yàlla tax mm. sànq rek bi muy dugg studio bi ñu ngi déggante maa ngi moom maa ngi nuyu bu baax di nuyu waa diaspora waaye di nuyu uh-huh. waa Suisse uh-huh. Uh-huh. ndax ñu ngi fay waajal guddi maam Cheikh day kala bu mag waaw Pape invité nañ la ci fu ma miin Pape yow miin foofu daal bu dee d'accord nga pour yor bu dee bëgg nga guide uh, nañu nañu ànd incha allah waa micro guide ak yëpp day baax <laughs> Nafi Nafi Nafi Satou Faye Nafi Satou mu ne ma macha allah nga ma xamal ne Pape mm-hmm. da nga ko wax ne moom mm-hmm. moom ku nekk Lausanne diggante Lausanne ak Genève. dëgg la xam nga ko di sëtu Cheikh Day Calaw. macha allah na uh-huh. max fu fayee ko jur. Xadijatu uh-huh. ko jur. Xadijatu uh-huh. mooy taawu Cheikh Day Calaw. allah nee na boo na nga ne waxal ma Pape Cheikh mhm. Mhm. bëgg naa ko te bëgg naa mu gane sama incha allah ca lu baax incha allah waaw mu ngoog euh, ñu ngi may xamal ni euh, tàggoo gi bëgg jot nag 11h10 xam nga man moom euh, bu yëf yi neexee rek ma xaabaabal neex na laay bañ waaye ñu ngi jéggalu bu baax Seyda Fat Bintou Diop yaay bu ñu ko mënoon gis nag ñu gis ko mais bon bu mënul nekk rek ñu ñëw tàggoo bu ko defee mën koo bàyyil programme bi li ci des ci télé bi xanaa bu ñu jógee le 4 avril nag ñu ngi jëm le avril ak euh, ah, ki nga xam ne ni mooy Cheikh Sadbou Samb Cheikh Sadbou Samb nag euh, dinañ ko recevoir ni ñu recevoir Ndiogu démb mm-hmm. recevoir ko Modou Mboup mi euh, publicité bi dina tàmbalee jàll à partir de lundi ci télévision Futur Média ndax moom suñu xarit la mm-hmm. suñu rakk la ba noppi itam Sénégal yëpp fonk ko en tout cas TFM daal seen télé la yéen ñi nga xam ne ni yéenay tagg yaa rasulilaay xam naa ni bu ñu toppoon bu ñu toppoon borom télé bi TFM Nabi TV lay tudd ah. ndax programme yi du doyee lii nag mooy li ñu dëxëñ ñun ñëpp bu ñu defee Modou Mbuub def euh, def def Sadbu mm. def yëpp ñu denc li ci des nag dëxëñ ko yóbbu ko Grand Théâtre le 6 juillet dina mel ni Grand Bal ndax bi mooy grand baalu diine ji c'est vrai ah le 6 juillet bi le 6 juillet bi mooy grand baalu diine ji kon ñu ngi ci woo àddina juillet ñëwagul mais tubaab nee na le temps passe vite donc dañu teel a jël matuwaay yi ci jàppandal teel a jël matuwaay ci réservation yi teel a jël matuwaay ci ci taxawaay pour mën koo fekkee bi nga ko tëggee euh, place du souvenir guddi googu maa ngi la koy nettali euh, am na fu ma waroon dem urgence am lu ma waroon dem jëli mais def naa presque deux heures de temps ndax embouteillage euh, diggante corniche bi place du souvenir ba fa ma waroon dem heureusement ba ren euh, euh, fi ñu ko yóbbu foofu du mën a jël ñëpp sax waaye dina jël maximum bi ci ñi nga xamee ne ñoo bëgg a fekkee le 6 juillet Oustaz Pape Hann muy programme mu télévision Futur Média du mën a guddi Oustaz Pape Hann rek waaye suñu yëf la ñun ñi nga xamante ni euh, ñoo nekk ci euh, télé bi. invitation Diallo na mhm. nga ñëw de. ah incha allah. Ah, sa guddi la kenn du ma fa jiitu ah, demal Oustaz. jëf Diallo yow mhm. kenn amul sa fay alaaj Pape mhm. bu daaw bi. bu ko àdduna bi yëpp jotee. yow mii la. ndax ruq bu nekk wax nga ko fa. foo toog wax nga ko fa. te sëriñ Mansour borom daara ji moo daan wax ni hmm. as gor bu ñu la defalee teraanga nga hmm. yoori leex ne dama ko yoyoo hmm. ci baadura la bokk groupe bi yëpp kuy def émission moo xam euh, émission musicale ngay def kuy def émission bu mu mën a doon. Mm-hmm. Mm-hmm. yëgle nga ko. Mm-hmm. groupe Futurs Médias jël ko muy seen mbir bopp. ba ñi nekk ci ginnaaw réew mi. di ko dégg chaque jour di ko bàyyi xel. kon yéen it kenn amul seen fay. alaaj Pape yàlla na yàlla barkeel la. amiin amiin yow euh, li ko Modou Mbow wax rek boo génnee. ngay xam cofeel gi nit ñi am ci yow. koo dajeel mun la nuyu ma Pape Cheikh dama ko bëgg. moo tax la ñuy baax ñëpp la sopp. yàlla na yàlla sàmm la. ci daraja yonent bi alayhi yow moom Pape <laughs> Pape nañu ànd. <laughs> waaw Pape dama mën naa. waaw waaw de demal demal très rapidement. waaw yaay booy. <laughs> waaw yaay ñëwal yaay ñëwal barkeelu rek yaay booy <laughs> yaay ñëwal barkeelu Seyda Fat Bintou Diop laataa ñu lay bàyyee antenne bi bi jaayi Fatimal Batuul ak bëgg yonent bi wa bindiya Muhammadu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi husayni wa hasana ya billah الهداي الكامل soppay Seydina Mohamed bi jaaye baatimal batuul boo déggee batuul mooy almunqatiatu an dunia almuxbilatu ala lahi bil kulliya wa bidiya Muhammadu rasulilaay Fatima lañ denc Seydina Aliyun mu am ci ñaari doomu Asan ak Useynu wa bi Xuseyni wa Xasana bi Abdillahi alkaamili Fatima keroog bi bàyyam génne àddina dafa tibb suuf sa fuun ko bi jaay Faatimal Batuul. sa turandoo ni maada alayya min sumi turbati Ahmada alayhi summa mada zamani xawaaliya. wa bi de yaa Muhammad Rasulillaay papaay géer bidaati minni. Seyda Fatim yónneen ne xaway. nga doon ko ci baax doon ko ci yiw. wallaahi doon ko ci xam-xam. wallaahi ko macha la ma la ci pédagogie mën yee nit ñi bu nu bëgg yàlla. teg ci bëgg kaaw. Cheikh Deme wilaaya daa Senghor ah? sama papa sama saan na jub di dekkali neew Cheikh na lay woo yoo nga nguraan beey eh, eh, eh, Mouhamed Yamal Mouhamed yaa ngi may yëngal <laughs> maag yow ak biir na biir maag yow ba 3 heures du matin tey ñu xëyaat nga daal di xëyee nii xam nga kan nga wax nag mooy Fatima sama turandoo. Mm. ki nga xam ne moom la yonent bi xool ne Fatimatu budaatun min bi jaayi Fatimatu bint rasul sallallahu alayhi wa sallam bi jaayi Fatimatu rasul macha allah macha allah macha allah wa bintiha Muhammadu rasulillah ay géer yaay baa jéggal nga ñu baa jéggal nga ñu parce que parce que man yaay danga ma ne man naa def lu ma neex Fatimatu kuy doomam Seyda Fatima kuy doomam yi dañoo bëri man ñeenta nga ca ku kuy sa doom man Hassan noo tudd Fatima waaye yaay koo bëgg Cheikh Mete kuy sa doom Fatimatu koo bëgg Cheikh Mete Cheikh Ahmed Tidiane voilà muy man maa ne ci xolam boo kenn dëggaale wala Cheikh Sharif nga doo maas wallaay maa ngi di xaar eh, yaay yaay affaire ah. bi nag nu muy demee yaay màkk bi ñakku leen labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk laa sharika lak ñu ngi ñëw léegi fekk la ci suuf kon mbokk yi ñu jeexal euh, di euh, fàttaliwaat rek ni euh, ñu ngi jëm tamit ci grande